lorsque j'ai entendu certains candidats. bi ma déggee ay candidats di waxu waxu monnaie local alors que ay at a ngi nii réew yi yëpp di dem ci intégration dama tiit ndax ñàkk expérience ak ñàkk compétence mën na yóbbal nit ki lu ne. loolu nag mooy wane ni que dañu àndul ak sérieux ci lu ñuy def. à l'incompétence ils associent le manque de sérieux réew kenn du ko caaxaane mënoo xëy ne lii lay def bu ngeen ma falee lii lay def commencé koo campagne changé programme kooku day wane ni xamoo foo jëm mënoo bëggoo sax dégg naa tey sax léegi dañuy toxal capital yóbbu ko feneen mu mel ni capital daal da ngay bind rek koy jële ko fii yóbbu fële il commence à. ñii nag ñu ngi tàmbali doon danger te askanu Sénégal war nañu ko lijjanti.